salaamaaleykum gars yi agsi leen ak jàmm ci suñu chaîne bii di tuto Baba Design tey nag dañuy gis cinq règles yoo xam ne dangeen ko war a xam balaa ngeen di defar seen fichier bu fekkee ni da ngeen di ab graphiste cinq règles yi nag da ngeen ko war a xam ndax daf leen di jàppale pour ngeen am fichier boo xam ne boo ko yóbboo ci web bi day baax boo ko yóbboo ci impression itam day baax yéen a ngi ci suñu chaîne bii di tuto Baba Design fii ñu ngi fiy waxtaanee lépp lu jëm ci mbirum infographie mbirum création graphique nañu daje sans machine léegi léegi. bu njëkk bi mooy da ngeen war a xam logiciel yi ngeen war a utiliser maanaam képp ki nga xam ne day liggéey ci lii di création graphique da nga war a utiliser ay logiciel yu mel ni Photoshop yu mel ni Illustrator yu mel ni InDesign yu mel ni Affinity Design yu mel ni GIMP am na yeneen i yoo xam ne ñi koy jëfandikoo soxlawul ñuy xam lu bëri ci mbirum infographie lu ci mel ni Canva logiciel boobu mën ngeen ko utiliser bu fekkee ni xamoo leen dara ci infographie bi ci topp mooy da nga war a xam li ngay liggéey nan la toll maanaam tolluwaay bi bu fekkee ni li ngay liggéey a la wala a la wala a la danga nga war a xam format bi format yi dafa baax loolu ci nga xam ko parce que boo ko xamee di nga xam li ngay liggéey fi nga ko jëmee nan lay toll wala buy génn ci papier bi nan la war a toll itam da nga war a xam résolution bi ngay liggéeyee am na leçon yu ma fi defoon di wax naan résolution biy tàmbalee 72 boobu résolution la boo xam ne da nga koy jëfandikoo ci lépp lu jëm ci mbirum web résolution bi nga xam ne nag mooy trois 300 moom la ñuy jëfandikoo ci lépp luy impression donc bu fekkee ni da nga am fichier boo xam ne danga koy jëmale ci mbirum impression résolution bi ngay tàmm bi ngay euh, tànn mi ngi tàmbale ci trois 300 pixels par pouce ñetteel bi di marge yi ak fond perdu yi marge yi mooy sécurité bi nga xam ne moom ngay am ci biir papier bi pour bañ écriture yi laal catu papier bi ndax écriture yi bu laalee catu papier bi bu fekkee ni kiy dagg ak mastiko bi da koo dagg mën na am mu cofaale sa benn écriture donc da nga war a bàyyi benn distance de sécurité boo xam ne cinq centimètres la ci biir ci kaw ak ci suuf bu ko defee di nga am distance de sécurité fond perdu yi nag mooy maanaam lu topp ci papier bi da ngay def ay euh, dimension yoo xam ne day dépasser sax format papier bi lu ci mel ni ay photo lu ci mel ni ay aplat maanaam ay fond de couleur yooyu il faut nga tawi ko mu génn papier bi bu génnee papiye bi bu ko defee bu ko waajee di dagg du génnee maanaam du dagg blanc wu papier blanc wu papier du blanc bi du feeñ ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci mbirum imprimerie dinañ xam bu baax li may ñeenteel bi di da nga war a tànn couleur bu baax bi couleur bu baax bi mooy loolu jàngoon nañ ko itam bu fekkee ni da ngay dem ci lépp lu jëm ci digital lépp lu jëm ci écran booy def booy liggéey da ngay liggéeyee RVB RVB di couleur bi nga xam ne moom la ñu utiliser ci mbirum digital mbirum booy def euh, présentation PowerPoint booy def euh, lu jëm ci écran donc li ngay utiliser mooy maanaam RVB bu fekkee ni nag da ngay imprimer lii ngay utiliser mi ngi tudd CMJN CMJN ñi ngi liggéey ci mbirum Photoshop ak euh, Illustrator ak yi InDesign ñoom xam nañ li may wax bu ñu xoolee ci seen mode de couleur yi danañ ko gis beneen bi di da ngeen war a enregistrer seen fichier ci ay format yoo xam ne day adéquat bu fekkee ni seen format bi ngeen di utiliser day jëm ci mbirum euh, digital da ngeen ko war a enregistrer ci format bu optimal format boo xam ne bu demee du diis bu fekkee ni da ngay utiliser sa fichier bi pour maanaam impression da nga war a utiliser benn format boo xam ne format la en PDF boo xam ne dina am résolution bu mag maanaam résolution trois 300 bu ko defee buñ ko tiiree bind yi du toj image yi dina leer. voilà lii lañ leen indiloon tey xam naa ni gis ngeen ni que maanaam cinq règles yi am na solo loolu ci képp ki nga xam ne da ngay créer fichier donc li leen di conseiller mooy ngeen. jàpp ko ak seen ñaari loxo te bu leen fàtte itam abonné bu leen fàttee bés loxo bu bule bi ak sonné bi bu ko defee vidéo bu dugg rek di ngeen ci jot incha allah nañu joxante dig daje ba beneen yoon caaw